waaye nag mooy sëñ Touba ma ko waxe woon wax naa ko ni ko man ba ma xamee ni yaay sëñ yàgg na ndax cër bi nga xam ni képp ku doon sëñ Touba cër bi nga ko jox mi ngi jëkkee sa sëñ Saaliwu sëñ Abdoulaad la jëkkee sëñ Abdou Xaadir sëñ Saaliwu sëñ Alaaji ñëpp xam ni léppam sëñ Muntaxa la liggéey bi nga xam ne tey moo koy fas yéene taxaw sëñ Muntaxaa moo doon jëwriñu liggéey bi kon sëñ mu taxa mooy sëñ Tuubaa gu sëkk feeñ na damay wax ni sëñ Muntaxaa tax na képp koo xam ni gis nga ko da ngay gën bëgg yoonu murit soo ko gisee nga xam ni kii ku gëm yàlla la kii ku bàyyeek boppam boromam la kii ku bëri yërmande la loolu moo feeñ sëñ Muntaxaa waaye nag sëñ Tuubaa am na ndam démb rekk la ma nit doon wan ni ma am na bayit boo xam ne sëñ bi bindoon naka xamle ni si muntaxaa lay ndakaaru kon ñëwam bi sëñ Tuubaa moo ñëw ndakaaru waaw te ñëw boo xam ni waaw waaw loolu moo wane ni ndam gi ndamu sëñ Tuubaa ndamu lislaam bi yépp la Mazaalik moom wax dëgg yàlla ndamu lislaam bi yëpp la du mu jullitu Sénégal yi du ndamu murid yi mais mu lislaam bi yëpp la ndax kat lii ay murid képp def ka wootewuñu laaj ndimbal kenn yónnewul fenn ñu taxaw def ko ba mu mat sëkk wax dëgg yàlla sëñ taxaa yàlla fay na ko sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ba li mu bëgg yëpp rawatina nag chantier bi mu def muy bu université bi mu mottali ka ba ñëpp xam ni xam-xam boom xam-xam lu mu rëy rëy su la réeree soo ñëwee si yoonu mu di daaka fa daaka fa jëlee kon cheikh bi ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ngi ñaan sëñ bi yàlla na fi yàgg te bu wér bépp murid loolu la war wax fu mu toll yàlla na fi yàgg te wér ndax kat man li ma ko yàgg wax soo demee soo ko dana la ko wax ba ma koy wax dama ni ko yow da dalal xelu murid yi da ngay seral seen xol ku la gis ku gis ni nga mel sëñ Touba dafay ruus si boppam bëgg laxasuwaat dolliwaat la mu doonoon murit kon yàlla na fi yàgg tëwee li sakinatan bi kullil janna min daari janna min daari minan yaatal minna